soir bu leen di fàtte abonné ci sama seen YouTube bi lien bi mu ngi ci TikTok maa ngi ñëw tey ci mardi mu nekk retour Ligue des Champions quart de finale diggante Chelsea ak Real Madrid Chelsea nag dafa ñëw football ci kaw Real mu sonal Real première bi tam mu mëne ko deuxième bi tam ci la seen jeune joueur bi dugg mooy kan Rodrigo mu égaliser ñu def trois buts partout ñu dem prolongation moom Karim Benzema mu libéré Redzi moom Karim Benzema mu def différence te nag bu ñuy wax si Real dañuy wax si Karim Benzema mu nekk seen meilleur jour mais mu nekk grand jour boo xam ne nii à tout moment day def différence te tamit wane na boppam boo xoolee ci aller bi moom Karim Benzema mu dugal 3 bi retour bi nag mu dugal benn bi bu permettre Real Madrid qualifié demi-finale facilement Chelsea nag football nañu jéem nañu lépp lu ñu mënoon def nañu ko mais tey sens bi ci côté Real Madrid la nekkee moo tax Real moo mujjee gagné 4 buts à 3 la gagné Chelsea mu nekk lu baax si équipe Real boo xam ne nii mu ngi pousse ci boppam ci Ligue des Champions qualifié na pour demi final moom lañ leen indiloon tey ci mardi diggante Chelsea ak Real Madrid Malang Alseni Alamuta Sport ci diggante. Villarreal ak Bayern de Munich boo xam ni équipe bu mag la club bu mag la tey nag ñoom ñoo doon football aller bi villa Villarreal moo gañoon un 0 retour bi Bayern nag moo ko dalal ci këram ñu def un bi partout Villarreal moom moo mujjee qualifié demi-finale mu nekk lu baax si Villarreal ndax géej na fa équipe la équipe am na ne ñi ngi toggaat mais équipe la équipe am na ne ñi ngi yeewaat ndànk-ndànk muy Villarreal qualifié na pour demi-finale moom moo mujjee éliminé Bayern de Munich mu nekk lu métti ci équipe bu Bayern boo xam ne ni équipe bu mag la mais club bu mag la Lewandowski moom moo dugal seen bii bi mu nekk lu baax si moom moo xam ne ni grand jour la à tout moment day def différence chaque match moom Lewandowski mu ngi wane boppam te nag ñàkk na Villarreal moom mujjee qualifié moom lañ leen indiloon tey ci mardi diggante Villarreal ak Bayern de Munich ma laal seeni Alamuta Sport ba leen di fàtte abonné ci sama seen YouTube bi lien bi mu ngi ci TikTok maa ngi fi pour képp ku bëgg football pour amateur yi mais aussi ñoo xam ne dañuy bëgg football ci seen xol samay abonné awma seen fay yàlla yàlla fay leen kontaan naa seen bu baax